dalen ak jàmm mbokki internet yi safo di setan bus MTV cyant ak ngeureum ñen leen si topu bi ngeen di topu sen bi li ñi dikk nak tay moy kàddu yi nga xamne ki di Cheikh Bara ndjay yekati won nako ginaaw bi nga xamé ne loi amnesty bi da dinaay jall ñu né dañuy libérer ki di président Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye om Cheikh Bara nak mu wax né amna ay kilifa yo xamne dal dox si ay tank ba wax ki di president Macky Sall mu libéré ki di président Ousmane Sonko lool nak dinañ ci dik ndax patriote yi dafa am nuñu ko jappé deug la Cheikh Bara da fay faral di def ay révélation di jangat mu nek nak ku pertinence mom mi tamit ndax jangat yu amam solo lay def waye bi la yor mom patriote yi dafa melni d'accordun ak mom kii di président Ousmane Sonko bu amé libération patriote yi ñoo ko sénégalais yi waaye nag nekkul kenn koo xam ne danga see wax ba tax ñu daal di koy bàyyi loolu dinañ si dikk ak ay jàngat yu ama am solo donte moom Cheikh Bara sax jot naa génnaat daal di leeralaat wax jooju nga xam ne nag wax na ko ba tax patriote yi ñu bëree bëri doon ko attaqué. waaw moom la njëkk lépp moom Cheikh Bara ak lu mën a am dañ koy nangul njàmbarteem dañ koy nangul engagement dañ koy nangul détermination bi nga xam ne am na ko ci wetu Sidna Ousmane jappale ni sidna usman kep lay katanam ala kul hal jappale ko ci alalam jappale ko ci tam jappale ko ci lolou la yalla dogal ala kul hal taxu ko ci façon bo xamni bu ko defoon man na ko ci bañu a waye nak and ak lolou lepp nak du tax mukk ah bu tabbe ci konéer yi ñu taxaw diko setan dede bu tabbe ci konéer yi dañuy ay ndax wisi wut ah sidna usman ko njabootam li ñu traverser ci ay moment yu difficile état jël doole jiñ ko dëkk jëpp mu gor ko ci kawam ah di ko mamaaje di ko xañ ay axam di ko torturer di ko métital ah kilifa yi nga xam ne nii ñoom lañ xaaroon ñu nekk ay supaab ah, am kattan am dayo am autorité pour mën a freiner euh, ndafa ak ci doxalinam kilifa yu ni ci cell bu ëmputul benn sénégalais ah patron yi di faay ànd ak moom taxawu ko ah ba yàlla maanaam daf ëttu politique bi jël beneen tournure nga xam ne kenn ku ne xam ne ni la war day nekk kenn ku ne xam ne ni mbir mi am na fu mujj jëm instant bii ay kilifa yu bëgg génn. ala kon di ràgg seen image bu ko jaar ci Cheikh Bara Cheikh Bara di gëm loo askanu Sénégal wane ni kilifa yi ñoo dox ñoo génn Sidna Ousmane ci ndigg sadax yi loolu dañuy jàpp ne ay conneries la fil xaqiqa nit ki bu defee effort ba mu def ala ko laal ba yàlla di ko di ko di ko cëral lam ko cëral lañ koy bàyyi nañ delloo càkkutéef li wala delloo taxawaay boobu ci moom te mooy askanu Sénégal waaye buñ ko bëggee jël bu ko cëralee ñeneen loolu ay ay ay ay la li war a mooy ndafa daltu gannaawam gii billahi na sama nar ko yaakaar ko bëgg ko te tey jii bu candidat Bassirou Diomaye Faye demoon jàlloon barke alxuraan du génne Ousmane Sonko du génne benn détenu politique waaye candidat Bassirou Diomaye Faye jàll na te mënatu ci dara te xam ne ni maanaam góor gi dana fàqarti ko ci loxoom dana tàbbi ci loxol loolu yaakaar parce que am na ay nattukaay am na ay ñu koy defal ay sondage yu mu da wax léegi nag tax na mu taxaw mu naa am lu mu jekkalaat si sama doxalin li muy dëgg bi alaaku laal loolu nag kon buñ ci jël bu ko cëralee ñeneen bàyyi askan wi xam ne ñoo taxaw ni Sidna Ousmane Sidna Ousmane ku ñu seetaanoon la li ko seetaanoo daal mooy askanu Sénégal mi billahi la sam ñoo ko dan nek ci ginaaw moy metti moy neex li moy dëgg bi Cheikh Bara nak wax dëgg yalla manaqib yi mu am ta moy taxaway yu rafet yi ñu am ci sidda Ousmane du yag yag bañ rafal ci wala ñu fatte ci dara luy deew xabar yi waaye nag du ag ci la yob nak bu taggo ay neeri ñun ñu nan ci tel gis nga Ousmane Sonko sax la barki alquran bu doxal yi ay neeri man damay taxaw ni li ay neeri la kon waxuma ne Cheikh Bara موسى hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum تسبهم yatayaru bi Musa waaye Sonko moom bu dee am na kenn ku ko taxaw ci ay jafe-jafe mooy askanu Sénégal te dafay kenn taxul mu reculer lu dul askanu Sénégal doo ak kilifa ne du dara waaw askanu ñoo ko mettre à pression mbir yi di dem rey gi di jéggi dayoo ba américain yi ne ko bàyyil ñii ngay rey ba ci trois morts yu mujj yooyu ñu ne ko quitter le pouvoir bi parce que da nga nar a yàq réew mi américain yi ñoo ko dafa ndax dafa am sous protection bu mu doon dund ci force yi ci kaw te loolu lépp c'est à cause ndax bu ñu woon ay mort de manifestant boobu mujj am ba trois morts de bi mu reposé élection yi loolu noonu moo jural dafa kaaw bu rëy américain yi ñoo ko nit ñi ñoo ngi dee di continuer di dee lii baaxul ci kii bi quitter le pouvoir bi organiser lay élection loolu noonu nag loo ko def ñoo ñooy askanu sénégalais parce que ñoo sacrifié ba ay bakkan dee ci kon Sonko moom comme ni nga ko waxee askanu Sénégal képp waaye doo kilifa dinañ doo kenn. c'est nag système bi gis nga système bi lu lu lu doy waar la baraana kuy xeex système bi mu ngi ci biir système bi si maaw da ko fi wax ju am solo la bi gars yi di attaqué Dramé noonu mu ne c'est dafa nekk ci biir système bi ñoo xam ne dañuy xeex système bi mais comprendre au fond lan mooy système bi dañuy dem nag ba commencé concentrer mooy tax mooy waral nga gis yenn varié ak yooyu parce que moom à chaque fois bu waxee voilà man la daraame man la daraame man la sëtu ajamal man la man la te loolu ci système bi la bokk sama maam diwéy sama maam loolu système la ndax loolu mag ngi jàngale wuñ ko lu yàqu looloo ko yàq dafa am ñoo xamante ne la ñuy def malgré tout danañ jël ay engagement xam nga danañ dem ba am benn populisme bi sonko sonko di wax ci sonko dëgg la de ay patriote lañ parce que nit ku ne li nga gis loolu nga mën a seede mais am na leneen lu ci laxu saa à dire ñoom dafa am beneen cause bu ñuy défendre mooy leen sëriñ ngeen nekk di ci dóor loolu it il fallait que nit ñi xam ko waaw sëriñ gi ak niñ ciy dunde loolu it dañ koy défendraale des fois ñu làqu ci projet bi mais ci biir làqutu giñ ci làqutu da nga gis loolu it maanaam lu ñuy wegg weggal la lu ñuy wegg weggal à côté la duñ bëgg loolu kenn ku ko laal danañ def ay ay ay ay mbir ay jàngat yoo xamante ne sax di jël mbirum di ko féete la foofu mais li nga wax moom lu wër la seen xaadim rasul Sonko daal saa boo amee kenn ku ko dimbali ci jafe-jafe yii mu nekk gannaaw borom bi subhaanahu wa taala mooy askanu Sénégal waaw parce que ndimbal lañ naan fan ko soxlaa kilifa diine fañ leen soxlaa dëgg dëgg dëgg defuñu benn réaction bu patal bu officiel boo xam ne gis nañ ne ñii wax nañ ca kaw waaw mbir mi nag bu fekkente ne nag saa askan wi ñoo xeex di def ay sacrifice ba dafa jël ay coup yu doy waar nekk sous pression ba américain wax ko lu leer nañ parce que ñoom ñoom la ragal mooy euh, force yi ci kaw mu dellu gannaaw kon ni nga ko waxee dañuy dégg askanu Sénégal ndax ñoom ñoo def sacrifice ñoo def ay manifestant ba trois morts de ñooy joxe seen bakkan procès Sonko yi ndawi Sénégal yi dañ cee def ay sacrifice bakkan lañ ci joxe sëñ bi bakkan mooy li gën a rëy bakkan la for la il faut ñu bàyyi xel bakkan wala Ousmane Sonko. li tax moom xam na Sonko dafa def ko xam na bu baax lim def waaw di nga ne bu ñu koy seeti ci kaso bi bu ñu ñëwee di wax sax danaan askanu Sénégal gii duñ ma gën a gore liñ daj ci procès bi ak liñ daj seen bakkan yiñ ci teg ñun képp lay diglu lenn lu jëm sama intérêt bopp dama ko def ñoom ñoo ma fi dugaloon ñoo pexe woon ba dugal ma fi ñoom ñoo pexe ba génne ma fi waaye lenn day xeetal loo xamante ne haute trahison la ak sama diggante askanu Sénégal duma def Sonko ku dul askanu Sénégal génnewu ko ci jafe-jafe yi gannaaw yàlla waaw ñuy wax fii comme benn ndam am ndam bi am ñuy def ay affaire de usurpation bëgg koo féetale ci kilifa dina yi ñooñu dafa am dafa am lu ñu lu la rek dafa am fu ñu làqutu rek parce que euh, ñoom it cëriñ gi cëriñ gi dañ koy kii waaw duñ duñ bëgg mu kii saa système bi daa yaatu de système bi kay saay euh, baraana ku naan système bi waaye yàlla xam na ne moom ci biir système bi parce que doyna war xam rek ñoo dañuy seeti gañu bax ni waaw des fois sax dañuy ngay gis yeneen discours yi dañ leen di tag nangam nangam nangam nangam sangam di leen jëlal défense waaw projet bi daal ak sel lañ ci soxla khalisan li wajhi yàllay yalla ay kasse yi ri ca bari ñoo xam ne dañuy nekk ci système bi di xeex système bi te ko comprendre na deug deug enfant ñom ñoo ci biir système bi fi ngi ko gisé nak moy bu ñu jiri war daan daan ba ci rina na xaq xaq xaq ci lay mi yi leer day mel ne comme bett rek xëpp la ndox mu tàng di xë xëqët mooy waral ngay gis vaar yu bëri yi waaye ala kulli xel daal Ousmane Sonko moom gannaaw yàlla comme ni ko waxee boo amee kenn moo ko sauvé ci li mu nekk muy askanu senegal parce que seen bakkan yii ñu sacrifié moo jural ndafa gàcce gu rëy waaw ak mal gouvernance boo xamante ne yàq démocratie dafa tekkeetul dara amatul benn charisme ba tubaab yi ñëpp di ko xas naan ko quitter le pouvoir bi pression boobu may dund ci force yi nekk ci kaw moo tax mu def recul waaw ay CP yi ak yeneen yi ak yeneen loolu noonu nag ki def sacrifice mooy askanu Sénégal mais Sonko moom li ko génnee ci jafe-jafe mi du genn ak kilifa du genn kilifa qu'on se dise la vérité dëgg mooy dëgg la ci gannaaw dëgg ay caaxaan la soo amee lenn lu ko ci génne gannaaw ndimbalul yàlla mooy askanu Sénégal lu wér nga wax ndax da nag bakkan dafa fort te ay bakkan lay. sax Cheikh Bara moom daa def erreur bu mag a mag nag moom wax fa dëgg yàlla bi yoon moom yoon moom jàll na lool sax ndax euh, dana tax nit ñi wax dara kilifa diine yi ñu noppi woon sax ci wax waxi kilifa diine yi danañ ci delluwaat di wax te lu waaye wax kilifa diine fi mu toll moom Cheikh Bara Ndiaye ko tooñ. lu waxit mom dafa xawa dafa xawa xorom lol sax xayaax bi nak mom jarut kenn diko ko askanele kenn askanu senegal ñoko mom lol moy deug xayaax bi mom santul mbacke santul ci santul Sall santul Joxaane santul Mbay santul dara xayaax bu yal xayaaxu senegalay yi la senegalay yee ko xex ndaw ñe ko xex du xeexu mag ñi mag ndaw ñe ko xex ba yegg si ndax ndaw ñe tambali te bañ tambale bawuñu ku ñëw ci nga leen ku dem balen ci ndaw ñee ci dé ndaw ñee ci laggi ndaw ñee ci ñak ndaw ñee ci manam lepp ñaw ndaw lañ ci tëj lepp lepp fo ci dem rek la ci upp ndaw ñi la fo ci dem rek la ci upp ndaw ñi la motax dem ba salu joxate di wax naan mom waa passé dañu rafet wa passé dañu nem xaw mu ko limé man mënuma ko waaye nem ko limé woon non non non bo xolé non it ci secteur bo mën dem bo mën dem rek ñafa upp Pastef la foo mën a dem martyr ci boo xoolee ñi dee ci géej gi ñi ci ëpp ñi ci ëpp ay ndaw lañ te waa Pastef lañ boo xoolee ñu ne ci kaso bi ñi ci ëpp ay ndaw lañ lañ boo xoolee ñuy génn ci mbedd mi xeex ñi ci ëpp ay ndaw lañ te waa Pastef lañ boo xoolee ñi ñi ñu gaañ ñi ñu làgge ñi ci ëpp ay ndaw lañ te waa Pastef lañ maanaam lépp lépp lépp boo xoolee ci réseaux sociaux bi ñi ci wax ñu ci ëpp ay ndaw lañ te waa Pastef lañ maanaam foo ci mën a dem foo ci mën a dem rek ay ndawu Pastef la ci ëpp ndawu Pastef lañ kon xeex bi moom di ko jël di ko surtout nag moom fa mu fa mu tibb moom wax fa dëgg yàlla ah moo toogoon fii di wax ko euh, kenn xamul li muy daw lu mu doon li ñuy ragal lu mu doon li ñuy ragal tudd kenn xamul lu mu doon ak nanga xaw ma nu mu ko waxtee noonu yooyu yëpp ne fi erreur nag weesuwut jël ko di ko askanale kenn moom. xeex bi moom wax fi dëgg yàlla te lam wax bu doon dëgg sax jarut mu koy wax gannaaw téye na ko ba nëgëni bu doon dëgg jarut mu di ko wax waxtuma laa mu di ko wax Sonko nag la te lam wax Sonko moom génnegut kaso bi te ñëpp xam nañ li koy génne ci kaso bi du dara lu amnistie ñëpp xam nañ ni am na si bi nag moom amul benn sëriñ bu tax Macky Sall def ko dul protéger gendarme yaag policier ya doon rey nit ñeeg nervi ya ca newoon ak ay mbokkam ak yooyu bénéfice bi ci waa waa Pastef am mooy seeni leader ak seeni partisan ak seeni sympathisant ñuy génn ci kaso bi loolu la ci waa Pastef am lañ ciy gañe Macky nag lam ciy gañe mooy ñu doon rey xale yeeg di leen làggil ak lépp lañ doon ji ñaate force spéciale yeeg yooyu yëpp ñu jël ko dëxañ ko ci suuf loolu la waaw te li ci waa Pastef di gañe bu leen ko mënoon xañ bu ko mënoon def di leen ko xañ dañ ko def xañ leen ko da ko mënut da xamni ne mënu koo def te do len ko xagn motax mu def ko waye du bëgg len du bëgg len a du bëgg len dimbali motax mu def ko bu ko mënon a def xañ waa Pastef du ñu genn mu mënon a def am messi bo am ne wa passé du ñu génn ci kaso bi du len ci bolé du ñu da na ko def da ko mënut kon dafa jël sol mbubum waa Pastef dafa solo wa passé ngir mëna a ay ñoñam ngir mëna a ay ñoñam ter sëriñ taxul mu def ko kenn waxu ba tax mu def ko waaw loolu moom wax fi dëgg yàlla eh, yëkkati yëf yi nag di ko féetale kenn moom day xaw a xorom lool sax xaw xorom lool Cheikh Bara moom daan na moom.